أما لمنسل دنا وداي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل دنا وداي ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء يدفع به عن البلاء ثم على من حيث مست يبرى بلا رجل وفاز بالغلاء asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokk yi suivre Jokko TV ñu leen ko waxee woon ci màggal gi rek fa tabarakalaaw ni nga xamante ni moom la ñu ara ànd ak yen ngeen ñuy suivre ci Jokko TV fii ci Touba boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey fa tabarakalaaw tey nag ñu nekk fii nga xamante ni mooy waa kër Serigne Saliou Mbacke doomam ja Serigne Mourtada Mbacke fa tabarakalaaw moom bi nga xamante ni taalibe yaa ngi fii ci biir ci suba ba léegi ñu ngi fi ngeen ànd ak waa Jokko TV nag fa tabarakalaaw màggal gi fii lañ ko war a passé incha allahu rabbi ñun waa Jokko TV ànd ak waa kër Serigne Saliou gi yëpp muy Serigne Mourtada Mbacke tey fa tabaarakallaa xoolal programme bi lii am ci suba ba ngoon fa tabaarakallaahu ndax ci suba 8 heures ba 14 heures bi gis nga wàcce nañ fa ay kaamiru alxuraan ak ay durusu xasida bu ko defee nag bu 18 heures ba 18 heures 19 heures jotee incha allahu rabbi kuréel waa safinatu amaan tura ñoom dinañ ñëw fa tabaarakallaahu def fi seen kuréel diggante 19 heures ba 20 heures kuréelu waa Dakar yi ña nga xamante ne ñoo féete Dakar ñoom it danañ danañ fi def ay kuréel wa tabarakallahu bu vingt et nag vingt heures ba vingt et une jotee kuréelu ndonga yi la wa tabarakallahu ci diggante kuréelu ndonga yi nag foofu noonu ci la spécial émission bi nga xamante ne mooy plateau bi nga xamante ne waa Jokko TV dinañ ko def ak kilifa yu mag yi nga xamante ne ñoo fi nekk di ay responsable incha allahu rabbi da nga ci ànd ak ñun vingt et une ba vingt deux heures Serigne dina ñëw rajasal ñu incha allahu rabbi bu ko defee vingt deux heures ba vingt trois heures conférencier bi dina jël def waxtaan bi diggante vingt trois heures ba zéro heure waa kuréel Safinatul Aman deux ñoom it dinañ ñëw wane seen yéene bu zéro heure jotee fa tabaarakallaahu kuréel dina amaat waat ci waa Dakaaru gi incha allahu rabbi bu ko defee nag fa ñu mujjee nag mooy kuréel gi nga xamante ni mooy Safinatul Aman un ñoom dinañ def seen kuréel fa tabaarakallaahu diggante deux heures quarante cinq ba keroog fa tabaarakallaahu ñuy doyal waaye di wax ni daal ngi ngeen ànd ak waa Jokko TV incha allahu rabbi fii ci nga xamante ni Serigne Mourtada Mbacke fii la nekk bu Cheikh Saliou Mbacke bu maam xaadimu rasul incha allahu rabbi ngeen xaar ñu incha allahu rabbi fa tabarakallahu yéen ñi suivre ci internet bi ak fi nga xamante ne mooy Facebook bi Instagram bi YouTube bi yéen ñëpp ngeen xaar incha allahu rabbi waa Jokko TV dinañ ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy programme bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Allah Wala. là, ba fii yéen ñëpp nee leen muus fan sama ginnaaw lu ma leen wax ngeen defal ma yàlla ak yéen kon ñu ngi am lu ñu def xam nga ngeen ransom da ngeen wax kuréel bi ci daane bi kon ab même moom bu la ko wan daal saa ngi dégg voilà allah ñu ñëw ñu daal ñu jéem ko def dañ koy def man jéem laay léegi Kambé mën na dem. Kambé dara mën na ko bàyyi nag dama ko def non non non nooy boole ñaari kàddu yi. Eh, demul nee na ma ko teg noonu rek. ma moo tax ma ne ba xam mën naa Aleluia. may seetaanee kurelu xasida yi ba ñëwaat mi ngi ni taxaw ak suñu sami jun bu serigne saliw mominga mom mi nga xamante boko gisé du dox luddul ci li nga xamante moy le serigne saliw mbacké doon dox mom nak kenn du leen ko présenter ndax bo leen gisé xar kanamam rek di ngeen xam mom moy kan ci mim réew la nak nit ñu bax ñi bu ñuy def lu bax di ñëw ci yu bax yi diko def bu ñu ñëwé fo nga jël leen ñoomin ñu wax ba ñëpp gisé ni ñëw nañ fañu wara ñëw té fi mu ñëw fi la wara ñëw muy kër sëriñ Cheikhouna sëriñ Cheikhouna Mourtada Mbacke bu Cheikh Saliou Mbacke kon Baye Sami Thioune bu sëriñ Saliou ñu ngi lay nuyu. di la fay ku baax di leen ziar di leen euh, ndokkeel ci bis semaine bu tedd bi sax laay wax ak mbaa ci weer wi muy weeru safar bi waaye di sant nag bi ñu yàlla mayee gudd fan ba fekke ko ci barke Serigne Touba. ndaysan de ngeen ni Baye Sami ciun bu Serigne nuyo we mi nga xamantene ñoy mbolam Baye Sami bi nit bi nga déggee ni magal Touba yegg si waan na sa xel ci lan la ñëk dem. ci sama gorga ga di Serigne euh vraiment motax dal da ngay bég di contane ba doo do mëna wax Touba surtout fi ñu taxaw ke murtala vraiment. Serigne Saliou rek la may jox rek waaye moo tax suñ tala léeg-léeg dama koy ñeen tala sax ñëw di siyaar wala ma koy xool ndax Serigne Saliou rek la may jox ñu bari nag comprendre ñu waaye man ak moom mat na mat na trente cinq ans moo tax di Serigne Saliou dafay kumpaam bi ma xam ni moom la ma Serigne Saliou booleel ma yeesal sama njëbbal ci moom ak njaboot bi sama mag sama mag bu jigéen sama mag bu góor suñuy soxla njaboot gi ñëpp ñëw yeeslu ñu jëlaat lépp parce que def ko ci benn buum delloo buum ca mboy mboy ga mooy xam ni kër Serigne Saliou ñun duñ ci génn mukk comme ni mu ko waxee kër Serigne Saliou bi du ci génn mukk dama koy wax sànq ñi ma àndal di barki ba léegi maa ngi dox am na benn photo bu nekk ci bunt bi dama naa leen Cheikh Moutada boo gisee da ngay gis sëriñ Saliou ci moom ndax lépp boo ko xoolee rek sëriñ Saliou Mbacke ngay gis ci moom waaye bàyyi seen juuf cuun mu sëñ Saliou lañ lay laajaat mooy sëriñ Saliou Mbacke mi nga xamante ni moom nga sopp ba bu ñu waxee sa tuur boole la ak moom tey jii njaboot gi nga xamante ni ak taalibe ak ñi ko sopp di topp ci ginnaawam ban ñaax nga leen di ñaaxaat bu ñuy ñëwati ci màggal wala ci kër Cheikh Saliou Mbacke lu ñu war a taxawal. daf ñoo yàqoon surtout rawatina woon ndaw ñi gune yi waaye gis nga li yàlla def xale yi Sénégal ñëpp Serigne Saliou lañ bëgg donte xamuñu ko sax mais dafa nekk seen deret moo tax boo gisee ñëpp riir wut ci sëñ Mourtala parce que day daan duru Serigne Saliou te vraiment Mbàkke liñ naan meew jombul pën sëñ Mourtala defagul dara te dina def incha allah dina gis àdduna gépp teg seen bët ndax gaynde du jur muus ku sewee jur sëriñ bi nga xam ne lépp ci yàlla dafa def lépp ci ayam la la la xewe cant gi ñuy cant ak lépp ci sëriñ Saliou la xewe bernde gi ñuy def lépp sëriñ Saliou wa ñu wan nuñ koy defee kon bu deretam di sëriñ Mourtala jëlee ci yoon woowu waaye nag mi ngi ci tànk yi de waaye lii nga gis yi berndeeg yooyu yëpp non Serigne Saliou kenn du moom kon Serigne Talla munu xamul lu dul lii du def lu dul lii du def leneen lu dul lii bernde rindi bernde joxe yaatal jaam ñi daw ñëw ci yow nga ñaanal leen fajal leen seen i aajo loolu la fi woy juróom nekkee woon yanu woonu lépp te meew jombul pël te li ne woon ci Serigne Saliou yëpp mi ngi ci moom mooy caat mooy mooy mooy bunt bi mooy jàpp mi ngi ci lépp mi ngi ci moom na ko gaa ñi wax seeni soxla mu faj ko ndax man na ko te te da koy def ndax Serigne Saliou way juróom wa bañu woon kenn woon dara nu way ñëwee téye la foo mën a ne ak soxla boo indi Serigne Saliou réglé na ko te Serigne Saliou mi fi mooy sëñ Mourtala na gérer situation bi man nag damay bañ di di wax ndax di génne yenn secret yi parce que te dinaa wax te yenn secret yi dinaa ko jénne sëñ Talla euh, sëñ Mourtala làqatu ak nëbbatu doy na des na àdduna ak nañ ko xam ndax woy juróom ba di sëriñ Saliou na génn nag taw nag wane boppam régler situation jaam ñi parce que soxla nañ ko te gaynde du juróom comme ni comme ni mu ko waxee rek gis nga xam naa dinañ jàpp jour incha allah ñëw ba këram defal spécial waxtaan ak moom ndax moom boo ko déggee ni muy wax nii rek xam ne am na fu mu teg Serigne Saliou Mbacke lool ba ñëpp xamal ko ko moom rek la xam moom rek la bëgg ak njabootam ndax boo gisee li mu fi wax lépp jëlaan na njabootam gépp ñëw ba ci Cheikh Mourtada ne ko njaboot gaa ngi njaboot gi sa njaboot la ñun ñëpp àndaata nag ñëw waaye Baye sa kàddu gu mujj balaa ñu yeewi. waaw di sant nag di sant Serigne Saliou bi ñu mayee lii ñuy fekkee te yàlla nañu ko fekke ak ab yu bari ànd ko Serigne Mouhamadou Mourtala mi nga xam ni mooy Serigne Saliou yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi ba li mu bëgg liggéeyal ko Serigne Touba Cheikh Saliou yàlla na ko yàlla defal ci barke Serigne Saliou te Cheikh Béthio lépp mooma ndax ba ñuy am juróom-ñetti at la téewoon suñu loxo indi ci Serigne kon liw bi liw bi ngelaw li la te ngelaw li vraiment bi buub ñëpp indi du kenn ku dul Cheikh Béthio kon Serigne Saliou Thioune ndigal nga xam ni mooy xalifaam suñ Xaadim Thioune ak i rakkam ñëpp yàlla nañu fi yàlla bàyyi yàlla jubóole leen ndax ku ñëw tey kër sëñ Mourtala lii muy def ah sëñ Cheikh Béthio lii la xam de kon nag ñoom dañoo am sas yàlla na leen ko yàlla defal jubóole leen Cheikh Béthio Serigne Saliou Cheikh Ndigal cur di Serigne Saliou Ndigal ndokk ba mu toppe di de jëfe ndigali sëñ Cheikh Saliou ndax loolu rek moo ñu jig kon sëñ Mourtala yàlla na ko fi yàlla yàggal ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla na am ngërëmu Serigne Touba ci barki Serigne Saliou jërëjëf Kouba jërëjëf kontaan nañ mu ngi noonu kon ñu bàyyi ko mu continuer ci li xam ne la nekkoon rek ñu ni tamit ñu topp suñu programme ak sama caméraman ak technicien yi ñu dem xooli leneen incha allahu rabbi jazaaka yaa xinu ibrahima mawlaaka xëral jazaa wa muna daarayka awlaaka jazaaka إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا خير الجزاء ومنا داريك أولاك فاغلب بأنك عن سور دن أبدا وساك يحكم في دنيا في الدنيا وأخراك فدما صدخي والإغلاس مطردا في سر والجاي كتن مو كتن مو مزاياك ki ñu ngi leen di nuyu di ñaanal bu baax khalifatul am li tay fil muridiya cheikh muntaha mbacke mu yàgg fi ñaanal bu baax suñu yaakar suñu lepp Cheikh Mouhamadul murtada mbake mom Serigne saliw mu yag fi lol ta ànd ko wer di nuy bax wa chute bi nga xamni ñoy wa joko TV di len ñaanal yalla nako sun borom def tele bu maga maga mag aduna bepp diko setan di ko lol nak wa niko ci amna naa lol ci jakarlo gene fi ci keur gi nga xamni moy sunu lepp di keur serigne murtada mbake mom Serigne saliw fek gi ngeen ñu fek gi nga xamni mom ngeen ñu fek wax deug yalla def ak ñun ben interview amnañ ci mbégte lol wax deug yalla sama mbégte dal moy ñew ci sama keur Serigne magale fi bis bi jàng fi xasida yi waxtaane fi seigne touba ñoo ngi sant ñep di leen gërëm di leen ñaanal yalla defal leen tawfiq yaatu sit bi yalla ko yalla def télé bu maga maga mak ci barke Cheikh mohammedul murtala Mbacke jërë ngeen jëf yalla yalla def jamm yalla ñu ko teewee adi bari jërë ngeen jëf. wa magal gi mom wax dëgg yalla kër gi mom lepp taw na kër gi mom wax dëgg yalla xéewali yi lépp na yi moom allah allah sant nañ bu baax nak waye lepp nak dañu koy santé sunu yaakaar Cheikh Mourtala Mbacke moom sëñ Saliou di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te ànd ko wér xéwal it doy na naa ni doy na lépp macha allah waaw ku xool lii ci sama ginnaaw di nga xam ni wax dëgg yàlla fi moom lépp taw feex waaw lépp taw feex am na mbégte lool ci jàkkaarloog yéen. waaw li may wax ci sëriñ bi mooy dama koo wax ni ko Mbacke ku dëkk fekke sab jataay waaw ni ko li may wax ci moom dama ko wax ni ko Mbacke ku dëkk a fekke sab jataay nga fóot xolam muy gën gi waay kañ naa la ràng may médaille waat naa ni mat nga saaliw mané ko Cheikh murtala yaa ma defar ya tax man naw ahlu badar seen bor nga aw dekké nafar téré borom ba saliw yow mbàkke jomb nga nelaw fajar lu jitu sax julik fajar ngay juk di jang kay sikar di roy sa bay ba saliw li mako wax Cheikh murtala Mbacke moom Serigne saliw ñaan yalla defal len tawfiya waaw fa tabaarakallaahu mu ngi nono ñi and ak Serigne Jili mu bax mi nga xamanteni fa tabaarakallaahu ñu ngi koy jéggulu ndax kilifa la ndax ñom ci suba barki dembu ba léegi ñi ngi ci li nga xamanteni moy walu magal gi waaye fa tabaarakallaahu bu ko defee duñ ko téye téye bu yàgg sëriñ ji ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay di leen ziar yéen waa Jokko TV di leen dalal di leen wax ahlan wa leen fii Tuubal Maxruusa waaye fii xariyati jannatul mahwa euh, kër Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Sëriñ Salim ñu ngi leen di dalal di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi nga xam ne bisu sant la bisu jaamu yàlla la. bis la boo xam ne cheikh cheikhuna ahmadul xadim euh, di xaadimu rasul moo ko woote euh, woote gi itam li ko waral du dara lu dul ak cant euh, sant yàlla ci xéewal yoo xam ne defal na ko ko ci liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jotee ci ndigal yonent bi dafa jotoon ci ndigal suñ boroom mooy rabbi as rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat ndigal loolu nga xam ne yonent bi da koo jotoon moom la seexul xadim jotoon ci liggéeyub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëñ Tuubaa ku nekk xam na ne jàngale ak jàng jàngale moo ko taxoon a jóg waaye bi muy jàngale moom yàgg ci da jot ndigal ci loolu yi ma la wax léegi suñu borom xamal ne ko yaral sa njaboot gi ci itte te bañ leen na yar njàng kese bi loolu amee itam sëriñ bi dafa woo mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci këram xamal leen leen képp koo xam ne jàng moo la fi inti yi yëkkati woon ko képp koo xam ne nag ndigal li nga xam ne moom la ma suñ boroom jox ci ñu ànd liggéey te mooy xitma Euh, mënees na koo tuddee tarbiya boole tarbiya ak jàng da nga toog loolu nag bi mu amee am na ñoo xam ne dem nañ waaye am na ñoo xam ne toog na mooy loolu ñu wax ginnaaw liggéeyam boobu itam ah, bi ñu ko tàmbalee ku nekk xam na ne am na ay natt ah, am na ay natt yoo xam ne euh, liggéey ba euh, moom la aju natt yooye nag ya ca jiitu mooy ku nekk xam na ni dafa bëggoon am daraja yi gaa yu baax yoo xam ne daa xemme moom seenu seenu seenu seeni daraja te mooy noonu ko alquran waxe ulaayika alladina anama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhada shuhada yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak yontu bi salaa sallam di tuur seen deret ñoo ñi la xemmee moom seenu seenu cër ba taxoon mu sàkk ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu xamal ko ne ko loolu faat na faat na ndax jamono jam xewe woon moom jeex na waaye nag la koy maye ay natt yu rëy la yu diis yoo xam ni mboolem gaa yu baax yi nga xam ni mas nañ koo sakku kuñ ci wax charte ya nga xam ni moom la làmboon euh, charte yooyu dana diis ci yow ba nga mujj gàntal waaye nag moom bi ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee charte yi dani ko na ko bakkan bi rek attan na ko bakkan bi attan su ko bakkan bi attanee rek yaram yi moom dina ko tegoo naka noonu natt yooyu ci la ñëw lu xisa yu gudd la yu yaatu ci la génn noonu ma ko waxee sababu xaybati ya allaha arada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi loolu mi ngi doon nekkoon ab xalwatu boo xam ne mi ngi ko dugge woon ci Daaru Xuddoos ci la ko jàpp nag euh, génne ko mu am sababu zahir ak sababu batin sababu bi wax naa junj naa ko ci euh, kaddu yu njëkk yi mooy ba lu mu siq la ak diggam ak rasulullahi sallallahu yoo xam ni la ñoom rek ñoom ñoo ko xam euh, sababu zahir si nag gis nga ni mu demee ndax ba kàccoor yooyu nga xam ne dañoo ñëwoon jël kaasab sàmbalaw be ñëw jël ko tamponné ko ci aw këyit ab leetar xam ni leen ci Ahmad Bamba moo ko moom moo ko bind moom sàmbalaw be wax ni leen ñoom dañuy ñëw ngir jihaad si ba tubaab yi ñëw jël ko yóbbu yóbbu ko yóbbu ko ci géej ñoom moom a yomba wiir wiir moom Gabon ñu jaar fépp gudd na waaye diggante yooyu yëpp it mu jànkoonteeg ci ay coono yu métte métti waaye coono yooyu yëpp xam na li ko tax a jóg yëqatul benn yoon tayeelul benn yoon ci tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak jaamu boroom mu ko salaatu sitta di matxi sitta ta bata ma afisa xaajoon at mi dundam la xaaj yoon benn weer yi mu koy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa benn yi muy julli ci yonent bi nag natt ba mu jeexee ci la suñu borom xamal jeex na waaw li ci des nag mooy ay may ci la woote bis bu tedd bii nga xam ni euh, li ñuy wax surtout principal yaa ngi fi mel ni ci mi nga xam ni moom la fi mujjee fekk nga xam ne ñu ko RTS interviewé nettali na la ko sëñ bi mag bi digaloon ca gàtt euh, boobu nga xam ne da ko amoon muy aw bëy doon ko ko loo am xar boobu ci la jot ndigal euh, la jot ndigal suñu borom xamal ko ni ko euh, nattu yi jeex na léegi nag ak cant ci des léegi nag cant boobu la woote njëkkee ko ci berne ci gàtt boobu wecceeku loo ko fi ñu lay gis bu ñëwee moo defar loo ko defar ko ñetti cër séddale ko ci kër gi daal di wax ni bis bii saa su excepté nañ na ci santale yàlla loolu moo waral màggal gi muy sant ak berne ak jaamu yàlla mooy moom suñ borom defal na ko xéewal xéewal goo xam ni moom ci jëmmam lott na ci moom nag mu woote képp koo xam ne aju nga ci moom euh, wala képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa saa su bis bi ñëwetee santale ko ci yàlla kon loolu mooy sababu bis bi ginnaaw ndigal yooyu ko suñ borom dox ci yar ak jàngale ak te yooyu nga xam ni euh, daj na ko ngir euh, am li nga xam ni mooy liggéey bi nga xam ni moom la bëggoon a liggéey li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy màggal gi màggal gi nag ñu ko waxee sant la ak bernde ak jaamu yàlla ndax euh, sant dañ koy defee ci xeet yu bëri nit ki sant ci làmmiñ naka noonu noonu lay sant ci ab xol waaye nag naka noonu lay sant ci e, tuur deret mooy bépp xilwaat yoo xam ni nit ki dana ko jëfandikoo ci ci xeeti berne yoo xam ne yaram daf koy soxla looloo waral nag ñu gis ni màggal ñett yooyu ñoo ko ëmb moo tax képp koo xam ne ñëw nga Tuubaa di nga gis ni e, saw ruux mi ngi dund bu baax ci jaamu yàlla waaye itam saw yaram mi ngi dund bu baax ci ay berne kon euh, bis la daal boo xam ni euh, biis la bu mat a fonk ndax euh, noonu ko sëñ Moussa waxee képp ku màggal bisu tukkeem ba mel na ni aj nga umra nga am nga yool ci alxuraan waxee wa man ya'sim xurumaatullaahi fa huwa xayrun la képp koo xam ne màggal nga barabu yàlla ay yool dana ci tukkee yoo xam ne dina la ñeel kon nag képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci bis bii bis bu tedd bii nga xam ne euh, bisu màggal la euh, la lañ te gën a euh, mooy ni ko lislaam diglee mooy tanzimuhu ni ko suñ mag bi di waxee ci gis bu boobu sax gàmmoo ko taxoon a jóg waaye mën nañ ko laafaale rek ci bépp bis boo xam ne bis bu baax te mooy tanzimuhu bi sunnati nga defe ko ni nga xam ne moom la mooy sunna bu ko yàlla diglee yonent bi diglee ko Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa génn ñu génn tax boo fi ñëwee waroo fee xuloo waroo fee xeex waroo fee ŋaññi waroo fee jëlloo moomul waroo fee xool nit bët bu ko neexul waroo fee def lenn loo xam ne dafa juuyoo ak euh, diine wala lépp loo xam ne sax dafa juuyoo ak ak teraanga ci jikko jikko ju euh, euh, jikko ju rafet kon màggal euh, loolu yi la laaj maanaam ñëw dundal saw yaram ci berne ndax loolu sëñ bu wootee waaye dundal saw yaram sa sa ruux ci jaamu yàlla ba xéewal yi nga xam ni moom la ci sëñ Tuubaa euh, yéene te yéene ci jullit ñi kenn ku nekk boo ñëwee boo sàmmoonteeg ak yooyu suñ borom defal la ci euh, lu kawe sa njort kon loolu lañ amoon ci luñ leen doon indil ci buñ amaatul beneen laaj boo xam ne macha allah ndeysaan dégg ngeen sëriñ jiili kàddu yi am solo yi nga xamante ni wax na ko comme niñ leen ko waxee rek ni mu ko waxee fa tabaarakallaahu am na solo ndax chaque jour ñu wax ko mbooloo mi nga gis ci àdduna bi yëpp ñuy daw di ñëw fii ci Touba liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi liggéeyal na ko yàlla ak diineel islam loolu la ko yàlla subhaanahu wa taala fayee te dégg naa ci benn mag sax mu ne yàlla fayagul maam borom Touba ñu ne ko lan moo tax boobu ngay xamne yalla fofu lako fasiyene ko ci ñi nga xamantene moy mooy jaam ñi ànd ak moom te muy lu deug nee la magal boko ko déggee doon dootoo waxati Sénégal dootoo waxati Afrique doone Europe da nga nan monde bi entier ñom ñëpp ànd magal ku ñëwul Touba ya nga Europe di magal ya nga Asie di magal ya nga amerique di magal waye sëriñ jii ñu baña jël temps ndax amna na yeneen yu koy xaar ñu jox ko kaddam gu mujj rek inshallah rabbi ak lan lay ñaax njabot gi nga xamanteni ñoy wajalat magal gi di ñëwaat inshallah rabbi waaw jërëjëf samay kàddu yu mujj euh, mooy ñaanal mu Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou mi nga xam ni euh, moom ngeen ñëw fii ci këram muy doomi Cheikh Saliou di am caatam di nit koo xam ne euh, dara ñoru ko lu dul diine lislaam waaye dara ñoru ko lu dul yoonu Sëriñ Tuubaa dara ñoru ko itam jaar ci tànke way juróom tedd woowu di Cheikh Saliou Mbacké moo tax bi ngeen duggee ci kër gi gis ngeen ko mboolem koo xam ne aju nga ci moom rek ñëw nga ni ko sëñ Saliou daan waxee di sant ba taalibe yi ci ñëw gi ñëw wuy si wooteb sëriñ bi ba pare defe ko ni ko sëriñ bi diglee noonu la Cheikh Mouhamadou Mourtala euh, taxawe euh, di ko dundale màggal gi ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu euh, ni ko sëriñ bi bëggee moo xam xasiida yi la ak Euh, bernde ak eh, yeneen yi nga xam ne ñoo am ci ci ci loolu ndax kër gi am na lépp am na organisation am na santé am na cuisine am na lépp lépp loo xalaat ci luy doxal euh, lépp luy doxal màggal gi rek te nit di ko di ko yittewoo rek am na ci kër gi am na ci kër gi nag xeeñtu euh, mboorom way juróom yu tedd yooyu ak maamam Cheikhul Khadim moo tax mu koy def dafa ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ni di leen sant bu baax di wax it ni kullu amin wa antum bi xayrin kullu amin wa antum bi xayrin waaye eh, xayri jooju ñu waajal ko tàmbali ko eh, waajalaat ni tey ndax Sëñ yu daan na wax ni eh, maggal de saa yu jàllee rek te bis boobu ba te bisu màggal la ko tàmbaliwaate waajalaat dañ koy waajale itam wax nañ ko léegi jëruñ ñu ciy dellu si mooy yéene ju sell ndax innamal a'maalu binniyaati wa innamaa li kulli imri'in maa nawaa mooy nit ki lépp lu muy def ci lu baax na ca jiital yéene ju rafet yéene ju rafet nag boo ko fasee jiital euh, daanaka euh, la ca topp lépp suñ borom moo ko am bu dee ay la moo ko amee bu dee teraanga moo ko ame bu dee jàmm ak sutura lépp moo ko amee kon buñ buñ jugee ci lii nañ ko waajal euh, waajal ak yéene ju sel yéene ju sell te dox jëm ci yéene ju sel nag lenn lu sellul mënu caa am euh, lu koy rax am soow moom nekk xam na ni lu xonq mënu mënu mënu mënta ànd ak moom lu weex rek moo mën a ànd ak moom kon ñu ngi soññaat mbokki jullit yëpp ndax màggal gi moom jullit yëpp ko moom di soññaat mbokki taalibe murid yëpp ñu fas yéene waajal déwén tey ñaan yàlla may ñu fekk ko ak jàmm te tal ko euh, liñ ci yéene lépp ñu am ci lu kawe suñ jot salaam jërëjëf ñu ngi àndoon a sëñ Jili fa tabarakallah di ko ñaanal yàlla moom it taxawaay bi mu am ci kër gi yàlla na ko yàlla sàmm taxaw ko aar ko yiir ko làq ko fa yàq yegul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxee yéen taalibe yi ngeen bàyyi ko la ñuy gis nañ ko dem nañ ca waañ wa dem nañ ca poste de santé ba ñëw nañ fi ñuy bernde lépp daal li mu wax gis nañ ko kon yàlla yàlla yàggal leen taxaw ci biir ak biti ci barki yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu àndoon ak sëñ jiili ci waxtaan wu am solo woowu noonu mu ñu doon defal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu xool mu ngi noonu gis ngeen mu ngi noonu Cheikh Akasa Samb gis ngeen ñu tàggalee xasida yi ak kàddu yi a wax am solo yi bu ko defee dañuy joxante rendez-vous rek insha allahu rabbi ba beneen yoon ak équipe bi nga xamante ne la ñu àndal ci màggal gi muy caméraman yi ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci terrain bi di wax suñu PDG fa tabaarakallaa gis nañ taxawaay bi am na solo boobu ba léegi mu ngi woote di masawu coono waaye di jaajëfal Cheikh ma Tidiane caméraman ànd koog Alim Badara ak ki nga xamante ne mooy Abdou Mbacke mi ñu ko àndaloon ak ki nga xamante ne mooy Soxna Ami Fall ak ñi nga xamante ne jàpp nañ liggéey bi yëpp duñ leen fàtte mu ngi noonu màggal Touba la nekkoon fa tabaarakallaa ak waa Jokko TV édition deux mille vingt et di joxante rendez ببنن مغل إن شاء الله ربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لمنزل دنا وداي ومنزل شفاء والدواي بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس يبرى بلا وفات بالغلاء